loolu naka lañ ko mën a comprendre. waaw mais loolu lu normal la dans une démocratie je pense que tous les candidats qui sont euh, passés en tout cas récemment au parrainage avaient le droit après l'arrêt de la liste du conseil constitutionnel de faire des recours. Mm-hmm. et beaucoup d'entre eux en fait sur Karim Wade en a fait sur d'autres c'est ça le jeu. mais venant du parti du pouvoir ça sonne un peu euh, mal en fait à l'oreille euh, dans la mesure où même que wax nañu euh, bëggu leen woon xëccoo ak ku ci mel ne Ousmane Sonko vous avez eu sa tête entre guillemets tey jii nii ki mu tànn pour mu nekk kandidaam aussi ngeen bëgg mu bañ a bokk ci élection yi. Non, Ousmane, on n'a pas essayé d'avoir sa tête. C'est lui-même qui s'est exclu des élections. C'est la justice sénégalaise qui a dit que Ousmane nekkul habilité wul dossier Euh, Bassirou Diomaye Faye c'est un Sénégalais a déposé son dossier nous si on constate qu'un candidat ne respecte pas la loi quand même on peut alerter pour que la loi soit respectée. vous avez peur de quoi. absolument rien nous voulons juste. péril on triomphe sans gloire. tey jii nii bu ngeen écarté pas euh, yéen directement xëy na mais une élection sans Ousmane Sonko euh, sans son poulain Bassirou Diomaye Faye ñan ngeen di xëccool le reste dëgg la am nañu dayoo mais vraiment euh, l'opposition bu ñu ko waxee tey jii nii elle est incarnée par le parti Pastef. non je suis désolé je suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites que l'opposition est incarnée par le parti PASTEF, je vous renvoie aux résultats des dernières élections législatives entre nous et l'opposition réunie. Mhm. totalement réunie par le PASTEF tout Yewwi Askan Wi et Wallu. Oui, mais dire pris séparément. Euh, plus de députés que les autres plus de maires que les autres. maanaam tey jii bu opposition régime bi automatiquement au parti PASTEF. le candidat c' est Bassirou Diomaye Faye ak ki recours contre ñoom voilà le, le de députés de PASTEF nous nous l'avons multiplié par deux donc on n'a pas peur de ces gens là li nga xam ne moom la yoonu Sénégal tëral képp koo xam ne rempliroo ko waroo bokk donc voilà. mais lii nii dafa am lu muy lu muy wane en fait dëgg gu muy wane nga xam ne yéen sax nangu ngeen ko xam ngeen ko seen secte de réflexion bi nii tey jii nii la moo ko tax a jóg ñu impliqué leen ndax jàpp ngeen ne votre candidat il ne draine pas les deful li mu war donc ñu bëri jàpp ne dafa xaw a impopulaire dafa ragal a jongante ak waa Pastef moo tax lii yëpp yéen aussi ko directement mais xëy na loolu ngeen di ragal. Mamadou Awa à ce titre si eux ils pensent mm -hmm. sa candidature pas euh, ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi ils ont le droit de faire des recours nous à notre niveau on a fait des recours sur deux candidats euh, Thierno Alassane a fait des recours sur Karim Wade mm -hmm. c'est ça le jeu politique on essaie d'écarter personne chaque candidat doit faire de telle sorte que dafay remplir toutes les conditions pour bokk à l'élection présidentielle